Oustaz Mor Thiam asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Georges Diallo la nuyoog ziar rek. waaw Oustaz àllarba tey gii nii loo ñu indil ci yóbbal bi. waaw Georges li ñuy baaxee nit ñi ci yóbbal bi tey jii mooy nit koo xam ne dafa amoon xaritam. ñu dem ba mu yàgg seetaane dugg seen diggante. nga xam ne dem nga ba mënatuloo jot ci moom. ndax dig bu nekk seen diggante nga bëgg dig bi dañ ngeen nekkaat benn juboo àndaat am na benn tur yàlla bu ñuy wax qaabidu yaa qaabidu moom ngay jël tegale ñetti fan yoo xamante ne ngay julli guddi ñaari rakka yoo xam ne danga ci yéene yàlla fajal la sa aajo soo noppee nga toog wax yaa qaabidu yaa xaabidu ba muy junni yoon nga ñaan li nga bëgg ci sa mbokk mboobu nga xamante ne bi moo la sori pour que ngeen déggoowaat bu beneen guddi jotee nga defaat ko beneen guddi jotee nga defaat ko muy ñetti guddi yu tegaloo sunu boroom dina nooyal xolam nooyal sa xol ba ngeen ànd dellusiwaat nekkaat benn maa ngi fàttali ni ñaar bu ñu xuloo tongoonte seen jàmm yàlla yépp yàlla téye na ko dootul yéeg juboo rek mooy taxaat muy yéeg Georges. jërëjëf oustaz Mor Thiam leer na ëllëg euh, alxames ci beneen yóbbal